école yi sori nañu dañu def nga xam ne daanaka mooy seen liggéey su jàpp ne loolu normal la. gis nga sax dañuy jéem a dañuy jéem a collaborer après on va on va s'expliquer sans hausser la voix parce que c'est aussi le boulot donc euh, il faut donc euh, donc euh, ñoom si d' accord. donc euh, gis ngeen noonu encore gars yi ñu ngi daxaat noonu donc ñoom sax ñu nekk fii nii euh, bëgguñ euh, ñu ñu ñu ñu li ne mel soo xool daxaat nañu ba ci feene nee na ñu ñu ñu taxawee ne donc actuellement li xew ci diwaanu Néma jox alo waaw maa xool yow ñoo ñuy sonal nii saa moo tax moom baaxagul. donc nee nañu mën nañu déplacé wu ba vers fii nii donc pour mën a continuer pour mën a continuer def la nga xam ne daanaka moo di suñu liggéey fi nga xam ne daanaka moo di suñu daanu neema ko jox mais jàppale ne pour ñu wone sax tey exact euh, li nga xam ne daanaka moo di xew euh, c'est un peu euh, compliqué donc. donc pour nga def euh, li nga xam ne daanaka moo di sa liggéey euh, dafa nekk un donc c'est un peu donc c' est un peu compliqué sooy xool sax seen chef moo ñëw nañu taxaw leen euh, fii ngeen filmer mais ñoom tamit ñu ñëw dañu jox yeneen décision yoo xam ne euh, euh, mën a jàpp naa ne nekk na loo xam ne métti na encore une fois ñu ngi koy dénoncé képp koo xam ne mën naa ne mi ngi ñuy déglu ñun ñun ñun même journalistes yi def seen liggéey damay xool ñi di takk yi avancé nañu pour mën a jot ki nga xam ne daanaka moo di ci kër Ousmane Sonko mais jàpp nañ ne donc ñu jàpp nañ ne ñun euh, dañ leen di sonal wala ñun daanaka dañ leen di bunu xataal li nga xam ne daanaka moo di seen liggéey fekk ne demeewut noonu ñun ku ci nekk euh, boo fi ñëwee am ñu ngi barrage nit ñi ba léegi a nga xam ne daanaka moo di seen liggéey gis nañ tamit euh, ñi di ndaw yi tamit noonu lañ amee donc on attend ñu taxawaale ko fa pourtant du ñu am image bu ñu amee image lii dafa sori mais image. sori lii dañuy def ne ñoom xam nañ ne teguñu ko fenn ñoom li ñuy def ne ñoom xam nañ ne teguñu ko fenn. li ñuy def teguñu ko fenn fi nekk dafay ñëw def si liggéey. donc mu nekk loo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy dénoncé encore une fois. pour ñu mën a def euh, la xam ne daanaka moo di suñu liggéey euh, fii ci diwaanu Néma jox sax léegi euh, nekkati na lu gën a compliqué ci donc soo xool takk ñu ngi dàq bu baax a baax a a baax donc ñun pour ñu wan leen exact li fiy xew exact jëm ci kër domicile du président Ousmane Sonko mu nekk lu doy waar a doy waar vraiment mais ñoo donc nekk lu ci mën a xew rek on continue maintien pour vous montrer lépp li nga xam ne daanaka mi ngi xew en ce moment di jaajëfal euh, bépp internet euh, yi ñu suivre fii ci Feeling Dakar ci encore une fois ñu ngi ñu ngi ñu jégal waat ci image yi yëngatu yeeg yooyu noonu ak déplacement yu bëri euh, jusque ni dañoo stable bul dañoo baaxagul depuis boobu ak léegi ñu ngi wax ak ñi nga xam daanaka ñoo di takk déedéet pour ñu mën a def suñu liggéey mais boo xool ba léegi lii la ñu ak ñi nga xam daanaka moo di ñëw mu nekk lu doy waar. Hmm. mu nekk lu doy waar da taxaw ñu daq la vraiment mu nekk loo xam ne vraiment mu nekk loo xam ne rafetul encore une fois. 18h48 minutes ci euh, domicile euh, du président Ousmane Sonko gis nañ takk diri euh, nañu avancé en masse en masse jëm ci kër fi nga xam ne daanaka moo di Ousmane Sonko gis nañ ndaw ñi tamit dañoon nañ ba yëg si fi nga xam ne daanaka moo di seeni barrage mu nekk lu doy waar vraiment xew ci diwaanu ki nga xam ne daanaka moo di procès Adji Sarr ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko gis ngeen lekk ni moo jee nii ça commence di saf foofu noonu ci kaw a kaw ñuy gis noonu lekk ni moo ngi saf noonu ci kaw kaw a kaw a kaw a kaw noonu donc euh, mën naa ne euh, takk der yi li yegg si ñu def si euh, barrage bi nga xam ne daanaka ndaw ñi barrage bi nga xam ne daanaka jot nañu ko def pour fi nga xam ne daanaka a baax a baax te ñuy nga xam ne daanaka moo a xam ne daanaka ñoo di boy yi mu nekk situation bu métti métti xew ci diwaanu Néma Kajoor fi nga xam ne daanaka moo di ci domicile Ousmane Sonko da ngay xool ne effectif bi nga xam ne daanaka ñii di takk der am nañ ko am nañ yenn ñu ci hôpital de la paix mais benn effectif bu ñu gis ne jot nañu ah, yegg ci kaw ñi nga xam daanaka ñoo di booy yi ba ñu des ñu yegg ci barrage bi nga xam daanaka booy yi teg nañ ko euh, pour mën a teg lu ni mel dafa mujjee nekk euh, daanaka lu lu lu compliqué euh, nekk loo xam ne daanaka euh, yegg nañ fa bu baax a baax a baax a baax mais teewul boo yaa ngi gën a wootee la nga xam ne daanaka moo di as euh, résistance donc mu nekk lu doy waar xew ci diwaanu neema ko jox encore une di ñaan ci mi jàmm la nekk vraiment lu am solo parce que lii di faral di am donc jot nañu gis ñenn ñi ñoo xam ne daanaka jot nañoo wax li nga xam ne daanaka am na ci diwaanu bu Ziguinchor donc nañu ñaan réew mi am jàmm bu baax a baax a baax te xam naa ne ñu baaxul ñun te baaxul si vraiment ci euh, force de l'ordre yi donc nañu ñaan parce que euh, xeex bi li euh, ni ko yàgg di waxee rek lii di Dakar du nekkul la nga xam ne daanaka moo di Ziguinchor donc wax jooju noonu ça arrive toujours lii di Dakar euh, du Ziguinchor naa la wax jooju noonu euh, ça arrive toujours donc loolu bu ñu la ko waxee rek euh, y a quelque chose loolu bu ñu la ko waxee rek dafa am daanaka li nga xam ne daanaka ko waral donc ñun nañu xaarandiku rek boobaa liggéey moom la bañ ñu wane moo tax ñu dàq ñu jaañu nga xam ne daanaka moo di asprek pour ñu gën a mën a bañ a jege fa nga xam daanaka moo di ci kanam pour vous montrer lépp li fa xew mais jàpp leen ne takk yi yegg nañu presque ak lëg daawur fa la nga xam daanaka moo di ci domicile di président Ousmane Sonko daanaka moo di barrage bi ndaw yi ñu def daanaka mën naa ne ah, takk der yi ah, yegg nañu fa ah, lu des ñu yegg fa wala bëreetul dara dara dara dara mais ñu on restera pour lépp luy xew mu nekk lu doy waar si Néma Kadior mu nekk lu doy waar donc ñun on est pour lépp lu fi xew ñi ñu continuer di leen ko jox pour ngeen da koy am carrière fi nga xam ne daanaka moo di ci feeling Dakar TV donc mu nekk lu métti métti métti mu nekk nekk lu métti métti yàlla fi jàmm am loolu la loolu ñëpp di ñaan yàlla na fi jàmm am moom la ñëpp di ñaan fépp koy waxal rek am même chose lay wax yàlla fi jàmm am kon mbokk suñu réew bii di Sénégal euh, yàlla na fi euh, jàmm am parce que euh, lii xew actuellement ci diwaan bu Néma Kajoor fi nga xam ne daanaka moo di ci domicile soo ko nekk na lu métti métti métti donc nañu xaarandi ko bu baax a baax a baax a baax rek dana nekk vraiment lu am solo gis ngeen policier ni ñu taxawee en masse ak seen oto li nga xam daanaka moo di lëkk daaw gën a jege ñi nga xam daanaka ñoo di booy noonu booy xool euh, taxawee nañ euh, ci euh, buntu camp gendarme zone 5 parce que fu camp militaire du moins zone 5. Euh, foofu la ñu taxawee donc euh, policier yi avancement bu baax a baax am nañ ko tey ci xeex wi leen euh, pour gën a mën a def face ak ñi nga xam ne daanaka ñoo di booy yi gis ngeen noonu dafa mel ni auto police bi dafa dafa wiiri koñ auto police bi yowoon dafa wiiri koñ pour gën a maintenir ñi nga xam daanaka ñoo di booy mais tey euh, li ñu a wax rek noo euh, di euh, ñii dañu gën a avancé bu baax a baax a baax a baax donc est ce que newul a jugal ñi nga xam noonu di booy parce que ñun sama nekk boobaak léegi ñu gis ne calme dafa judd fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu bu Ziguinchor nga xam ne daanaka moo di ci domicile Ousmane Sonko sama nekk ne calme dafa amoon bi ñu xoolee na affaire baa ngi yëngatu teewul ñi ngi ci ki nga xam ne daanaka moo di Adji Raby Sarr ki nga xam ne daanaka moo di Ousmane Sonko a bi Ousmane Sonko mel <laughs> mais gis nañ daanaka li nga xam ne jot naa xew euh, fële nga xam ne daanaka moo di au euh, niveau bu euh, tribunal donc mu nekk lu waar mu nekk lu xew fii nga xam ne daanaka moo ci diwaanu ci Ziguinchor donc ñun on est ngeen takk der yi noonu ñoom ñëpp seen taxawaay mais ñi nekk ci kanam mën naa ne effectif boobu noonu moo ëpp doole fuuf parce que nee naa la si nañ fi nga xam ne daanaka moo di barrage bi nekk fi nga xam ne daanaka mooy barrage bi ndaw ñi baare woon. Euh, pour euh, garder euh, sécurité ki nga xam ne daanaka moo di Ousmane Sonko mën naa ni takk der yi jege nañu li nga xam ne daanaka moo di barrage bi donc tey takk der yi mën naa ni xeex bi am nañ ci la nga xam ne daanaka moo di aswàll donc takk yi tey am nañ ci xeex bi la nga xam ne daanaka moo di aswàll donc dañu teel a këftaan ñi nga xam ne daanaka ñoo di booy yi daanaka moo euh, di barrage di lekk donc da di partager euh, li nga xam ne daanaka euh, moo di live bi pour ñu continuer di leen gën a mën a wan parce que bu ngeen demee bay gis ñun nu ñuy taxawee ak ñi nga xam ne daanaka ñoo di takk deer yi ñun euh, bu ñuy def euh, la nga xam ne daanaka moo di suñu liggéey euh, ñu ñu koy xañ léegi wala bu ñu waxee ñun tamit ñu leen koy delloo dafa am na lu a a nekkee nii sax dafa sori parce que waruñ a gën a mën a amee nii toujours dañu war a mën a nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne donc mënuñ ñoo jël ne lii yàgg fi nga xam ne daanaka moo di ci xew ci Sénégal gii nii donc encore une fois nañ ñu xel ñun mooy médias yi wala yi nga xam ne daanaka ñu ngi ci réew mi gis ngeen auto police boobu noonu mi ngi demaat demaat ci beneen koñ bi dafa mel ne day dàq jiwaat ak ñi nga xam ne daanaka ñoo di booy dafa mel ni day dàq ji waat ñi nga xam ne daanaka ñoo di booy yi eh, beneen côté bi comme ni mu ko def woon ci beneen côté bi dàq ji booy mais booy yi en masse eh, ñoom ñëpp eh, ñu ngi mobiliser wu fa nga xam ne daanaka taxawoon nañ fa moo di barage bu mag a mag bi ñu def da ko barrage bu mag a mag bi ñu def di gën a jàkkaarloog maa ngi seen ndaw ñaa ngi continuer di lancer li nga xam ne daanaka moo di seen ay xeer daw ndaw ñaa ngi continuer di lancer seen xeer mais teewul attaque der yi tamit ñu ngi am masse yegg si nañ dépassé nañ sax euh, miir euh, bi nga xam ne daanaka moo di hôpital de la paix donc ndaw ñaa ngi continuer euh, di gën a dem gis ngeen ñoom ñoo géré wàllu circulation bi ñu takk der yi taxawee nii ñoom ku ñëw ñu wàllu defal nii mais teew teewul ne ndaw ñaa ngi continuer di xaañ li nga xam ne daanaka moo di seen ay xeer vraiment mu doon doon doon lu métti. xew ci diwaanu bu réew mi gis nañ euh, depuis boobaak léegi euh, li xew euh, ci diwaanu tribunal bu dakaar jëm ci procès ma ngi la fen wax léegi moo di Adji Raby Sarr ak ki nga xam ne daanaka moo di le président Ousmane Sonko. donc ñu xaar nag gis nañ ne lacrymogène yi daanaka saf na ci biir noonu dafa mel ni ndaw ñu dañoo lancé li nga xam ne daanaka moo di cocktail molotov dafa mel ni moom la ñuy seen noonu dafa mel ni ndaw ñi dañoo lancé des cocktails molotov. parce que euh, saxaar si bëri na foofu noonu ak yi nga xam ne lacrymogène donc ndaw ñi ñoom a euh, seen xeex euh, foofu la ñu ko téye comme ça amuñu la nga xam ne daanaka moo di as am ah, wala li xam ne daanaka moom la takk der i yor donc ndaw ñi seen i ay cocktail molotov la ñu yore moom la ñuy lancé parce moom la ñuy lancé donc ñu xaarandiku bu baax a baax baax a baax a baax. Euh, pour les internautes euh, yi nga xam ne ñuy bàyyi xel niveau fi nga xam ne moo di ci euh, Feeling Dakar TV pour ngeen koy am en temps réel dara bañ leen ci rëcc mais gis nañ ne lii di lacrymogène yi saf na ca boîte boobu noonu saf-sàpp donc ñu ci war a jot la nga xam ne daanaka moo di as première dose mën naa ne mos nañu mais dafa am lu ñu métti mooy que ne xañ nañu li ñu war a wane carrément pour nit ñi actuellement xaw xam li xew actuellement ci diwaanu Ziguinchor donc xañ nañu loolu donc xañ nañu loolu mais nous on reste concentré fi nga xam ne fa la ñu nekk ma mel ni booy dañuy ñëw ah, sur l'autre côté maa ngi gis gars ñu ngi commencé di waxtaan noonu seen biir noonu takk der yi ah, ñu commencé di waxtaan noonu seen biir parce que der yi ñu ngi commencé noonu di waxtaan li nga xam ne daanaka moo di seen ay biir gis ngeen noonu ñu ngi laan ne dëpp leen gis ngeen noonu dafa mel ni booy dañoo fëlaat euh, côté parce que gars yi demin nañ leen foofu demine bu métti gis ngeen ku ñëw danaa la dëppal donc ndaw ñi dafa mel ni euh, demine nañ foofu noonu dafa mel ni ndaw ñi demine nañ foofu noonu ndax ku ñëw sooy xool a ah, nim naan la dëpp leen léegi booy xool dañu doon maintenir xa pour nit ñi mën a jàll. mais gis nañ ñu ne ah, ndaw bu ñëw dañ naan la wala ku yor sa moto wala sa ku yor sa kii dana la dëppal kon ah, jàpp nañ ne affaire bi dafa dégénéré sur l'autre côté. donc restez connectés restez connectés donc restez euh, connectés. pour on continue euh, di leen wan non sëñ Fallou euh, bu nekkoon yow teel dugg ci laaj bi mënuñu avancer euh, bu nekkoon lu ñu mën a avancer la vraiment dañuy avancer mooy ki xool depuis bu baax léegi li ñu gars yi di teg donc ñun vraiment mën naa ne nekkatuñ sax si li nga xam ne daanaka moo di ak sécurité te lu ñu wax euh, ñii di ñun suñu liggéey noonu lañ ñu ko jàngalee ñii di euh, force de di yi euh, ñoom ñooy yor li nga xam ne daanaka moo di si sécurité bu ñu demee ba gis ni ni mel ñu koy teg ñun ñi nga xam ne daanaka ñoo nekk ci terrain bi dañu daan ak kenn nekkatul ci la nga xam ne daanaka moo di sécurité mais lu ñu leen mën a wax rek actuellement ci li nga xam ne daanaka xew na fii Euh, ñii di takk der yi avancé nañu bu baax a baax pour mën a jot a barrage bi nga xam ne daanaka ndaw ñi teg nañu ko pour mën a jàll fa la nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu euh, kër Ousmane Sonko euh, takk der yi ñi ngi foofu noonu juste teewul ndaw ñaa ngi resté fi nga xam ne daanaka moo di seen baaraag boobaak léegi di jàmmaarloog ñii nga xam ne mën naa ne ñoo di takk der yi boobaaka léegi nee naa la tàyyi wuñ ci dara te duñ leen ci bàyyil dara ndaw ñaa ngi continuer di wéyale li ni doon alo doy waar xew ci diwaanu ci Kicoor fi nga xam ne daanaka moo di euh, ci euh, Ziguinchor euh, domicile di président Ousmane Sonko donc actuellement c'est compliqué donc c'est compliqué bu dee euh, ñi may woo euh, nañu arrêté li ni mel parce que euh, ñu on en direct gis ngeen takk der yi ñoom ñoom ñu ngi noonu taxaw en masse takk der yaa ngi noonu taxaw en masse daanaka euh, ñu duñu ay euh, on peut dire euh, ñi nga xam ne daanaka dañu sol ay tenue nekkee ca côté li nga xam ne daanaka moo di l' aéroport donc moo di comme information rek ngeen xamee ko noonu parce que c' est normal que ni ngeen xam. allo ah, allo. allo waaw waaw